jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su fi ñu leen tàmm di leen nuyu rek di leen toppal lépp lu nga xam te ne bii mooy làmb wala bokk mooy actualité te bokk ci réew mi dañ koy waxtaanee bokk ak ñi nga xam ne ñi ñuy suivre dañuy bàyyi xel saa su ne wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi di mën di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel ngeen di ko mën a am comme ni ñu ko bëggee saa su ne tey nag maa ngi fi nga xam te mooy gàddaay su ma nee gàddaay nag seet ci le grand champion muy Ndiaga doole nekk école de lutte Ndiaga jamon ci combat jëmoon ci wàccaay pour le 4 février euh, ci kalaaf bu nga xamante ne bi ci la nekkoon muy poule B euh, ci semaine combat bi ñu jékki jekki dégg li nga xam mooy blessure am dal ko ba jul bëri li nga xam te mooy kalaaf euh, bi la taal ñu ci xuus xuus nag dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre su ko defee ñu mën a ñëw ci waxtaan bi Ndiaga maa lay nuyu bu baax a baax di la ah, maa ngi lay fay bu baax a baax ginnaaw bañ sant yàlla jëli seen jëbi sant suñu ñaari waajur di son suñ sëriñ alu aloone maana jaay di ñaanal yàlla njaboot sa mbax ya yëpp lo lool rawatina sa mbax sërif bo di ko ñaanal yàlla yéen bi ayab lool ci kawam yàlla bàyyi ko fi ko raqam ñi fi nekk yëpp bañ fekkee suñu njariñ baax baax baax di ziar waa ngumb bu wér wér di ziar waa nguraan di ziar waa kemer di ziar waa ngaay rawatina tund ko jot bàyyiñ fen di nuyu waa njaasaan waa ndeer nar olof di leen ziar ñoom ñëpp lañ wa seen wàccuwaay waaw rawatina ñi nga xamante ne ñooy seen ñii seetaan quoi waaw di ziar waa Guédiawaye nag kulluhum rawatina sama waa koñ di nuyu ñëpp waaw di masawu ñëpp waaw di baaluwaat ñëpp àq di nuyu tamit waa gàddaay gi nga ma fekk nii quoi bu su mel ni Moutala Seck suñu xarit la suñu lépp la di ko nuyu ñaan yàlla yaayam yàgg fi loolu te wér waaw ak mboolem yaay di nuyu Omar Dia suñu xarit waaw di nuyu daal ñëpp daal képp koo xamante ne yaa ngi bëggee njaga rek njaga mu leen di la jox sa wàcc waay. am na solo la tax may ñëw ci blessure bi ak ci wàccaay bi yëpp njaga euh, kañ nga gëj a bëre avant nga dugg ci kalaaf. man ñaari at laa mujjee bëre ah. Euh, ñu bëri arène nationale. ma fële stade Amadou Barry. stade Amadou Barry waaw. lépp boobu léegi bëriwaatuma. léegi tey ñu wax tournoi wala boog kalaaf dugal la ci lu la bett la wala looroon sóor la te kat ni kat mën nga cee bokk. ah no affaire moom chance la rek c'est du question bett na la wala kii ndax nit moom boo nekkee xale daa entraîné nekk si nekk si làmb bàyyi woo làmb kon am na loo xam bu ñu la ko proposé bu dee pare nga rek rek si sóobu loolu la rek moo tax bi ñuy proposé calaf yi wax ñu suñuy adversaire amul problème ñu am problème yëfu góor la rek waaw loolu. informé waxtaan bi ak négocier bi yàgg na wala yàgg. non non non man dara yàggewul ci man waaw bi gars yi di wax kalaaf bi di wax kii de toute façon comme que ñun daanaka ñun dañ doon bëri daan daam problème combat kon bu ñu tagalee kalaaf mu leer na saison bi da ngay bëri trois combat loolu suñu avantage la quoi. dañ ci mën a taxaw gën si wane sa bopp. waaw gars yi gën la gën a mën a bàyyi xel quoi ndax làmb ji saa yoo xëyee da ngay gis bu bees quoi loolu mooy waral boo gëjee bëre gars yi lay xaw fàtte. bi muy soog a taxaw yow la woon Doudou Sané ak ki nga xamante ne bii mooy euh, général Malika ak booy Jaxaw ñu dem ba ci biir euh, général am blessure moom tamit teel génn ci moment boobu nag bi général Malika génnee koo jàpp woon ni kat tey Garga 2 bi nga xam te moo ci dugg à surprise yaa ngi ko jëloon sóor wala ko ci ko non man moom sóoruma si woon kenn koo xamante ne xalaatuma woon sax tooguma fi tamit di sóoraale kenn koo xamante ne da siy dugg wala kii ce soit alpha ndax instant jàpp naa ñun ak lu mën a xew ñett mbër dugg nañ ak lu mën a dañu am benn mbër bu ñu mottale rek waaw xam nga tamit souvent dañuy yàgg dem àll bi di bëri ay tournoi du benn du ñaar du ñett mm-hmm. da di toog rek ñu ne diw ak diw ñooy daje mm-hmm. te boobu da ko fa di sóor naan ki ngay dajeel ki ngay dajeel mm-hmm. làmb ji noonu la rek wax dëgg yàlla awma ci benn problème pour kii laay bëral wala kii wala lii wala laa voilà. tey euh, bi ñu demee ci tournage bi wala boog ñu tirage yow ak dusan ngeen wara beure euh Boy jaxa wara beure Garga de sa diggante ak dusan nekul c'est la première fois yi ñaar ngeen di bëre jaar ngeen ci ay mbabat beure ngeen tay ngeen dem wara beure kalaf kalaaf muy sen premier euh, combat bu nga xam te bi ci beure dor la won lol bi noko ko préparer wa di ko pare rek di préparer rek préparé kalaaf kalaf yëpp da quatre mois ci ginaaw wa ndax bi kalaaf pare rek bi mané kalaf kalaaf rek dama dem commencer entraîner toog ma fi di xaar ama kalaaf ma ngi entraîner mais dama ko jëloon au sérieux wax deug yalla ndax am na foo xamante ne teg naa fa sama bët te xam naa ne kalaaf mën na faa yeggal quoi sóoraalu ma kenn ku ma war a bëreel nag xam naa ne samay adversaire samay adversaire lañ samay naataango lañ quoi maa ngi ñoom ci làmb bu ñu amee taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war a am ci làmb amuñ kenn suñ benn nawle boo xamante ne mbër la dañ koy sóoraale si lii wala laa moo tax ñu teel a dem nekk suñu roq entraîné nag def li waroon lépp ci combat bi. li waroon lépp boobu ba tey ñu ngi doon entraîné di toog di waajal combat bi. biñ tiragé tamit ñu wax ñu adversaire bi tamit xooluñ loo xam xamante dañoo bett wala lii wala laa ndax ñu ngi doon préparé ñoom ñetti ñëpp. waaw boo toogee ñu wax la kenn dangay xam ne kii ngay njëkk am rek voilà mais ñeneen ñëpp da ngay bëre ñoom voilà gis nga waajtaay moo demee noonu quoi. ci wàccaay bi ñu dem bañ ne ñu ngi ci semaine bi ñu dégg Ndiaga dafa am blessure blessure boobu est-ce que mën nga ciy ñëwal lan moo ko indi entraînement la wala du entraînement wala lan la. non entraînement dañ ma gaañ. voilà entraînement moom moo blessure ñoo ànd mais kenn sabablu ko kenn ñaanu ko yàlla waaw affaire bi daanaka bi amee ñun dañ ko doon nëbb ndax lundi jour match Sénégal jour match Sénégal kii Côte d'Ivoire jour boobu la. yaa may dégg jour boobu lundi boobu la ay quatre heures bi ñu demee teel a commencé entraînement ndax instant boobu Sénégal da doon football ndax ñu mën a gaaw a pare voilà fi ñu demee ay quatre heures noonu noonu bu ñuy nekkee di expo di kii rek si lañ si si la ñu gaañee zone nag waaw bi ñu gaañee sax dañ ko doon nëbb la instant ku doo kut bëgguñu woon lu yàq na bi dem nañ fi ay hôpital CTO dem nañ fi ay principal fu ne ngir bëgg loo xamante ne day calmer zone bi ngir ñu mun si bëre pare mais daw nañ deux jours yoo xamante ne bàgg na si hôpital bi tant que mënul rees affaire bi gën a néewi nag léegi nag sama kilifa yi nga xamante ne ñoo ne si làmb ji ñu ne nag ñoom duñ jël seen risque di ma bàyyi mais bu doon man ak man rek la bu doon tànk bu dama sax mun naa ko bëre waale ba génn ci yooyu yëpp garaawul yooyu moom dawul sama yaram quoi ndax yëfu góor la quoi ndax tey bu ñu doon bëre bu ci tamit damm damm fekk la wala leneen da ngay gérer ba rek leneen luy munta am am léegi nag ñoom ñëpp ñu waxtaan nag ku ne wax ma ku ne wax ma ma xamante ne tamit ñii comme ñëpp waxandoo nañ li ñuy wax danga nga koy def rek da koy def rek. ndax tamit gaa yi duñ la gën a bëgg sa boobu quoi ba gars yi waxee ba kii si lañ xëyee dem bi biñ demee CNG ñàmbe xool tànk bi gis affaire bi ni mu néewee sadd moo médecin seen médecin bi boole ñoog moom ñu dem fa biñ demee kooku xool ñu ki nekk si labo bi mu xool ñu boole woon ñeeg boole waa ñeeg beneen médecin mag bi biñ demee kooku si lañ xoolee ñu seen tànk bi mun leen si bëri dimanche si lañu bindalee pour ñu def rajo def rajo def mu bind nañu si quoi médical bi gaa yi dugal ko loolu moom moo indi sabab bi quoi waaye tamit di jégaluwaat gars yi di masawuwaat te xamante ne metti na si ñun torop waaw te ñu mooy loolu. kañ la semaine deux semaines wala. non moom. gars yi waaw repos médical man xaw mois lañ ci def j'espère xaw ma waaw mais loolu de toute façon comme que instant boobu ñu ngi xaw am tan boo xamante ne waa ñu ngi koy sentir suñu tànk waa mu soobee yàlla xam naa ne fii ak semaine bi ni ñëw rek. ñu commencé cokki cokki zone bi xool waaw xool lu muy joxe quoi xam naa du yàgg dara bu soobee yàlla bu ñu amee tan moom dañuy teel dugal suñ Salka guérison ndax combat bi dañ ko soxla dëgg yàlla combat bi bu newee suñ kanam bëgg fi taxaw di ñu taate loolu nekk lu ñu gënal voilà combat bi bu soobee yàlla ku doo ku daal ak lu mun a xew rek bu ñu xoolee suñu wërgu yaram rek bu ñu xoolee ba xamante ne am nañ mieux rek dinañ teel dugal suñu certificat de guérison waaw ñoo xamante ne affaire yi wax dëgg yàlla ñun bëggeewuñ ko noonu quoi ndax waajoon nañ fépp quoi. mais tey noo déggee tey ñenn ñi ni Ndiaga Dolé dafa am Doudou Sané rek teg ci yaramam coono ko nga xam te ne bii euh, daaw ko teg ci yaramam ba tey moo ko jural blessure yu mel nii. non dañuy wax rek man moom fi mu toll nii kon xam na ne man axuma làmb may fooyee mm-hmm. Doudou Sané keneen kalaaf laay waaj damay entraîné ah. Mm-hmm. boo ñëwee fekk ma fi entraîné da nga xamante ne kii day liggéey ci axaanul te làmb ji nag entraînement rek moo fi nekk yeneen yëpp ay deuxième la ay détail la mais gars yi entraînement lañ mënante dañ doon entraîné sérieusement entraîné physiquement di contact lu doy waaw léegi blessure nag bu ñëwee nag doog nekk suñ kaw dañ koy nangoo te xamante ne entraînement moo ànd mais kenn sababu ko sabablu wuñ ko sababuñ ko combat bi yàqu gi mu yàqu nii daanaka man la gën a metti te mënuma si dara wër naa damay dox sax ah booy foo tourné suñu combat bi suñu combat bi suñu combat bi ñu doon wàcc suñu combat bi ñu doon wàcc suñu bi. wa te lamb ji xam nga rek ñun dañ ko jaay wa dañ ko jaay si signature bi jaay ko fépp gaay yëpp doon ko baye xel waaw ñu xamantene ñaari jambar ñoo waron dañ ñaari garmi wa mo tax ñu jaay lamb ji ba lamb ji nek ci xelu gaay yëpp voilà moo tax cat dugg ci nak voilà. tamit ñeneen tamit ñu ñen ñenn mbër yi est-ce que tey duñ am yenn manam technicien yu leen dar ci walum entraînement ndax bo préparer combat ci ay 2 mois 3 mois. ba dugg ci semaine combat li nga li nga war a entraîner ci semaine combat par rapport ak tey ci bu combat de see un mois deux deux mois maanaam professionnalisme de see dafa war a am ci entraînement yi. waaw noonu la demee sax par la mooy entraîner woo entraîner mu métti boo xamante ne xam nga ni da nga ciy entraîner lii pour blesser déedéet c'est que ndogal fu na lay jógee nga sax waaye boo waree gaañu fii boo gaañul tamit da ngay génn leneen gaañ la rek lu war a am la mënoo si dara ndax gis nga affaire bi ñëpp la dépassé samay coach yi nga xamante ne. jour boobu dañ doon daw maanaam échauffé tuuti pour yëngal yaram bi répétition la ñu waroon def répété répété ndax jour bu noonu booy bi ñu doon tëggal sabar yi sax ñëw na si ñëw na fekk si ñu foofu yaa ngi may dégg ba bi ñu am blessure moom fa la ko fekk ay booy yu bari yoo xamante ne suñuy supporter nañ fa la leen fekk nekkul loo xamante ne kon accidentellement la ñëw nekkul loo xamante ne da ko prévoir woon wala li wala entraînement moom boo ci nekkee moom ala kulli man à tout moment. lu ne mën na laa arrivé loo xamante ne doo ko mos a yaakaar loolu moo dal nag c'est que du question ñàkk professionnalisme wala li wala laa ndax lundi boobu noonu dañoon daw pour échauffé étiré wu yëngal yaram bi tuuti def répétition ndax instant daanaka finition moo fa defoon mënatuma fa woon entraîné loo xamante ne da lay may daal une semaine. Mhm. léegi tey euh, première journée bi jàll na tey ci Garga 2 ak Boy Diakhao ci say adversaire lañ bokk gis nga seen combat ni mu demee loo ci jàng. waaw jàng nañ Garga 2 dañ koy féliciter rek de encourage booy jaxaw mm. waaw xam nga làmb moom mooy loolu waa mais laal am nañ si jàngat boo xamante ne ñun ñoom la xam naa ne buñ teyee si géew gi mm. bu soobee yàlla nañ xam liñ si jàngat ko quoi waaw ndax ñoom ñaar am nañ changement quoi waaw ah oui am nañ changement trop ci diggante bi voilà léegi nag yow nag léegi loolu da lay gën a dimbali tey jii mm. ku la si yàlla booleel rek da ngay mën a xam ni ngay defaree say finition si moom. xool nga ñaari mbëri ku ci nekk xam nga foo war a jaar foo war a moom. ah oui leen bu baax ndax samay adversaire dama war a bëre ak ñoom à tout moment dañuy bëre voilà kon nag moo tax ñoom seen combat dañoo jël suñu temps seetaan ko xam ne suñuy adversaire lañ ah dañ leen jox cër bu war mais bu soobee yàlla bu ñu dayee ñu xam lépp dëgg la quoi. léegi tey promoteur bi di Makan après loolu depuis loolu déggante ngeen wala. non Makan dégganteeguñu waaw mais xam nga rek man moom début. bi affaire bi amé tak bi ga ak kiwee sax dama len wax deug yalla donc promoteur bi moy préparer combat ñeu bu fi affaire bi am bugguma sax promoteur bi ñu koy wax lo xam da koy décourager lo ci journée bi ndax tamit voilà diko déstabiliser nañ ko baye mu concentrer au journée voilà légui nak sen journée jeex na ñoom gis temps yaa ngi dégg seen i ñu ngi ci yenen ak yenen ñu ngi waat ci yenen ak yenen man nak wax deug yalla ginaaw wa sen CNG defal nañ ma décharger ma nek sama tank di faju mënu nek di faju di lijjanti yeneen yoo xamante ne war ma ko lijjanti voilà man instant man war dëgg yàlla man maa ngi toog sama ruq boobu ba tey dem hôpital di ñëw di faju mm-hmm. waaw yàlla boole maag nag ay grand yoo xam ne dañu boole ay médecins yu baax mm-hmm. ñu may taxaw si côté bi yëpp di ma dimbali tànk bi wax dëgg yàlla instant maa ngi siy tan ko quoi. Mm-hmm. ci gox bi nga nekk ci géejawaay euh, yaa ngi woon ci combat di préparé gisul nga sa bopp si ñoom bi ngay blessé tamit yaa ngi sentir sa bopp si ñoom wala. sama waa koñ bàyyi ñooñu amu seen fay ko wax dëgg yàlla combat bi moom dañ kalaaf bi sax laa dañ ko jël au sérieux depuis bi mu taxaw ba tey mhm. wuñ ñu ngi organiser ay simb ñu ngi organiser forêt soir ñu ngi for organiser loo xamante ne wax dëgg yàlla pare woon nañ pour jënd ay bolog bi waaw ñu ngi doon créer ay yoo xamante da doon may ay fonds boo xamante ne buñ taxawee nañ mën a jënd bolog bi ndax géejawaay léegi moom autorité yi moom yàlla xam doy na mhm. voilà loolu moom moo tax wax. kon kon gisoo leen déggoo non gisuma benn autorité dégguma benn autorité. Hmm. ngay préparer lu toll ni kalaaf. gaa dañu war a dañu war a gestu mbër yi. di leen drapeau géejawaay. waaw drapeau géejawaay li ñuy représenté fu mu mënti dem. waa ndax ñun ay doomu géejawaay lañ kenn mënuñoo génne si dëkk bi. voilà moo tax instant bi tamit mënoo di préparer combat nekk say entraîné say réglé yu métti. Hmm. bëgg di. lëfër lëfër si ay kër autorité wala ngay wootee ku ne nga man loolu man mënuma ko dama part personnel quoi. Mm-hmm. kenn ku ne fa ma jàpp ne laa la war a woo dinaa la fa woo. si mm-hmm. côté bi yëpp nag. voilà mais nag le temps que tamit mooy toog tamit di bëgg tamit di toppaat sa ginnaaw di kii man yooyu moom dama si fekk quoi am na loo xamante ne su ma si naree kii moom. ma toog concentré wu sama kalaaf bii quoi moo ma gënal. wax dëgg yàlla am nañu yéene nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. buñ sañoon tey jii fu ñuy bëree am ñu ñu jëndal billet. mais géejawaay gis nga ñii dañuy jàppale ñuy bàyyi ñii loolu moo fi xam nga rek sa waay ñun nguuru dem bàyyi di sangal kenn bàyyi seen kii bàyyi ñun yooyu mënuñu ko ay gor lañ ay góor yàlla lañ teg si ay jàmbaar lañ quoi teg si nekk ay bañkat am na yu bari ko mën mais fii gars dañuy jàppale ñii di bàyyi ñii loolu moo fi am te gars yi nañ yemale nit ñi te xamante ne ñëpp ay doomu géejawaay lañ. tamit tamit nga démarche naam boo kenn ku jege ci yow dem ci ñoom wan ne ni kat njëga am na combat lañ dugg si ngi leen di woo mais loolu laa mën tamit ndax tamit gars bu vidéo nga de fii am na ñoo xamante ne buñ defee benn vidéo bu ndaw balaa ñu naan nii gars yi dab ko nga gis man meilleur parti ku ne jël gaan di essayé ku ne def mais tey ñi nga gën a jege sax day mel yow say wax da leen di soob wala quelque chose liggéey daal da dina jug quoi booy jug topp suñ ginnaaw ñuy dem tamit di bugg taxawee benn taxawaay loolu duñ ko mën moo tax booy tamit mention spéciale quoi ndax combat wax dëgg yàlla ñoom ñoo gën a sonn ndax ba kalaaf bi taxawee ba tey façon loo xalaat ñu ngi koy organiser loo xamante ne da leen may da leen may kii rek ñu ngi koy organiser defar ay soutien dugal ci koñ bi lu ne ñu koy def ngir waajal kalaaf bi rek ngir tamit seen xarit yi nga xamante ne dañuy jóge feneen di ñëw buñ ñëwee ñu mun leen a jox ay ko quoi mais gisuñ daal benn autorité boo xamante ne ñëw na jàppale ñu si ay billets wala jàppale ñu si lii wala laa gisuñu ko amul. ginnaaw loolu euh, di Doudou Sané déggante ngeen ci wala. non wuñ waaw mais dégg naa mu def benn vidéo dañu waaw ñaanal jàmm waa di ñu masaw waaw li ñuy masaw ñoo ko bokk rek. waaw ndax jour woowu noonu comme ni mu mel si man rek noonu la mel si moom ah. mhm. bu ko daloon tamit dañoo xamante ne mooy loolu. mais comme ni mu ko waxee ñun làmb ñoo bokk ndey ñoo bokk ko quoi ñun mbëri amuñu xaaj ak seen lu war a am nag day am mm-hmm. voilà di ko wax nag bu soobee yàlla comme moom nee a yàgg-yàgg dañuy bëri te bu soobee yàlla dina am du yàgg dara mm-hmm. billaahi wallaahi bu dee suñu côté day am léegi du yàgg dara waaw na yàlla def jàmm rek mm-hmm. kalaaf bi tamit di ñaanal tamit mbër yi nga xamante ne ñoo ne si kalaaf bi benn mbër bañ am dog-dog boo xamante ne day gën a taatal affaire bi ndax tamit daanaka tardivement bu ndaw bi rek gis nga am na lu mu si jiyee quoi lu bari loo xamante ne mooy loolu te wuñ ko nii nii mm-hmm. wuñ ko woon nii mais tamit lu mënul am lu munul ñàkk foo mu am voilà instant daal ñu ñu ngi ñu ngi ñu ngi waajaat bu soobee yàlla suñ combat mbaa maa ngi dégg si kii gars nañ ko yóbbu si yi mm-hmm. man moom fu ñu ko mënti yóbbu tamit pare na de toute façon combat bi daal nañ ko teel a bëre rek waaw yàlla def jàmm quoi ñu yeggale kalaaf bi quoi beneen journée bañ a bañ a bañ a amaat rëq-rëq quoi. léegi fu ma ko jeexale mooy euh, tey lii actualité ci biir euh, réew mi ci biir làmb muy entre Gaston ah, entre Makan euh, Jamaïcain Zarko Bébé Diène Coen si noo gisee coow loolu. waaw mais làmb xam nga rek làmb làmb daa yàqu quoi. Hmm. waaw. non làmb ji moom yàqu na bu yàgg. ndax xam nga tamit gaay dañu am seen mbeur mo tax loolu mo ñëk yaq lamb waaw tay waaw promoteur yëpp promoteur yëpp naka dañu am ay mbeur mm. waaw oui tay xam nga tay yow lamb ji li fi nekk ci ay mbeur ba gaay dañu bay xëccu ay mbeur ah xam nga ni kon ya quelque chose quoi ah, mbeur dañu jar mo tax non tamit fi ñëpp dañ leen kay ah, nangul bu rafetee moom xëccu bi day bari waaw loolu dañ leen kay nangul mo tax xaw tamit lamb ji tamit promoteur bi tey jii promoteur yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñëpp war a bokk ndey war a bokk baay ñoom ñëpp tey seen intérêt la ñuy xool si nit tey voilà léegi nag kenn ku ne tey sa intérêt ngay xool la la amal intérêt ngay dem wëri ngay dem jëli tamit ak noo ko munti amee da fexe am ko rek yow xooloo leneen loo xamante ne mooy loolu mais tamit ginnaaw gars yi daal ñoo bokk lépp dañu rafetal quoi te xam ne xaajaloo weeg yii jaru ko coow li jaru ko ñoom promoteurs yi ñoom dañoo war a nekk benn bokk ndey bokk baay. ndax loolu moo leen waran waaw ndax làmb am na yoo xamante ne rafetul rafetul ci image làmb rafetul ndax loolu lu rey làmb la quoi waaw ndax tey instant boo déggee ñu kii dëgg na mbër mi kiy jaar suuf di yokkal mbër mi di def nii te mbër intérêt rek lay lay topp chaque jour waaw léegi nag souvent boo defee noonu nag kay jël image bi yóbbu ko fee ba pare léegi ñooñu bu ëllëgee buñ la buñ waree ñëw si yow mi nga xamante ne yow yaay ndeyu mbili gi sax dañuy xaw a sóoraale voilà te yooyu baaxul ci làmb te ñun soxlawuñ ko mm. ñun suñu làmb ji baay lu ko defar mm-hmm. la ñu bëgg quoi. Zarko loo koy wax. ah Zarko man sama borom mbër la man la ma koy wax mooy instant bi en tant en tout moment ñu ngi koy féliciter combat bi mu jógee waaw di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal yàlla ndam li jikko quoi di ñaanal ñaabu ndaw tamit ba maatee combat suñu borom may ko ndam mm-hmm. waaw dañ koy encourager bu baax a baax borom baax la waaw mais Zarko tamit. nit da am kilifa quoi mm-hmm. am kilifa daa baax ñi nga doomu aadama mënoo joxe bopp ba ci làmmiñ nga ñun mm-hmm. kenn moo ñuy waxal pare nañ ci suñuy wax kenn du ko dégg fenn mm-hmm. ay wax ay démarche combat yi ki ko war a wax moo koy wax ñi war a gérer gérer ñi war a dem dem ñu entrement lañ am nekk si ñu war a nekk def lu ñu war a def doomu aadama nag am na xam boo fa tolloo bul di nangu tiñal doomu aadama yëpp quoi. ndax lii tamit damay dégg gaay naan du benn yoon du ñaari yoon liggante la nag suñu yoon newul si yow ak nooy doxee mais dañuy wax rek loo xamante ne voilà loo xamante dañ koy wax loo xamante ne maanaam suñu nawle nga kon am nañ droit tamit mu gisee rëq-rëq dañ koy wax mu rafet rek mais waxuñu la pour jéem a avancé la wala pour jéem a xool sa biir noonu. non non non ni mu defaloo doxalee noonu benn mbër àndu si mm. waaw ndax tamit wat gaal yëgoo quoi. waaw ndax mënoo wax ak kii suuf ba gars yi dañ xaalis ba ngeen def li ngeen si def nga pare gis leen lu ngeen du sa bët mais waxtaanee ko ñoom ba pare boo ko waxtaanee ak ñoom coow du jub quoi mun ngeen ko gérer comme ni ngeen ko waxtaanee woon noonu ba pare te coow du am loolu mooy yëf professionnel quoi mais yi ñuy def ni yëpp yëfu cuune la quoi te yooyu baaxul billaahi entre jamaïcain ak euh, makan di ay frère diggante mag ak rak tey foofu loo fay sànni message waaw ñoom ñaar nañu waxtaan rek te xam ni ñoom ñaar ay naataango lañ ci làmb voilà kon nag lépp na rafet rek te xam ne lu ñaaw xaju fi diggante promoteur ak promoteur foofu daanaka lu ñaaw war fa xam te làmb ji léeg-léeg comme gars yi nga xamante ne ñooy nekk ci ginnaaw promoteur yi ñoom ñiy jege gaa yi ñoom ñoo dul wax gars yi dëgg voilà mais loolu gaa yi nañ ci bàyyi xel te xamante ne na rafet daal comme que ñun moom daanaka làmb moom boo fi nekkee mbër sax promoteurs yi daanaka ñoom ñooy sa buur. ndax tay promoteur tay buñ teggul ah yow mëno bëré quoi wa té promoteur yi souvent tamit ñom damay gis ñom bu féké mbeur da def dara ñom dañ ko doon waxtaanoo sax naan mbeur mi comme ko ni la mel ki neemal dañ ko boy ko waa toog di ko sétan voilà mais tamit mbeur waru le mëna a seen biir ki naan kii may defal li ki naan damay defal lii bii mbër wuy bëre te bëgg avantage lolu ya xam quoi sa bop la wax dëgg yalla boy nak nag mënu leen jéxal quoi ku jug nga beure ku jug nga beure sa carrière mel nako am problème defal géral metul mm-hmm. mais jarul nit ñi nek fi nan ay yak ki ki la yak ki ki la yak ki la quoi mm-hmm. voilà. Mm-hmm. ko kon kontaan naa ci yow. waa Thier beugal na ci wër wër wér waaw di santaat yalla rek waaw di ñaan yalla tamit rew mi tamit jamm am fi quoi ginaaw lepp jamm ci la xaj quoi waaw di ñaanal yalla nak sama gaay nak di leen ziarat di leen jox seen wacc bu baax baax baax. xam ni combat bi ñoom sonnoon nañ ci trop waaw mais tamit dañ jégaluwaat di jégaluwaat sama waa koñ programme yi nga xamante ne moom lañ fa jot a def waaw gars yi daal xam naa ni déranger nañ leen di leen masaw di leen baalu àq ndax wax dëgg yàlla teg nañ leen loo xamante ne mooy loolu mooy daal dañuy jégaluwaat xam ne suñuy papa ngeen suñuy yaay ngeen ñu ñoo ko sañ mais dañuy jégaluwaat baax baax di tuubaat. waaw di ziar nag sama gars yi nag ku ci mel Adou Fall ma nga xamante ne daanaka ñooy nekk maam moom samedi ak dimanche waaw di ko jox wàccu waayam bu baax a baax a baax sama booy yi mafia baax ma kenn sama waa ñoom mama ngañ da ngay jëm Abdallah Moussa sama sama waa koñ waa Jobal Baye Fall ak waa Nasixa waa Corniche mafia Nasixa bi waa pharmacie Nasixa tamit dama leen di sant bu baax leen gërëm madame Nene ndax bi combat bi taxawee bi mu ko yëgee tamit dem naa ñu toog waxtaan de ndeysaan mu jàppale ma waaw te loolu tamit dax nekk acte bu rafet suñu waa place waa place Diawara waa Corniche ñaar boulangerie Guédiawaye ñu bàyyi fenn pël bu Guédiawaye nag sama doom la waaw pël moom sama fils la quoi moom daal daanaka instant Guédiawaye ñëpp ko bokk mais moom sama doom la aw ma fayam waa rond jamono rond-point Mor combat bi waa jamono ñëpp dañoo génnoon tax si rip barki yeneen ci yàlla bi ñoom tooguñ tey ñu xaar leen si leneen ñoom ñoo ñëpp ñoo mbër affaire bi suñu yëf la ñun jamono la ñu dëkk yaa may dégg duñ toog di xaar ñeneen jóge fenaan di kii li si waroon lépp ñoom ñu nekkoon si di yëngal fépp loo xalaat ñu ngi ko doon def si combat bi di ko waaj waaw mais tamit di leen wax yàggul daal dañ koy jàppaat léegi léegi léegi bu soobee yàlla waaw di sant tamit ku mel ni Maysa sant yàlla bu dikk suñu grand la suñu lépp la dañuy jàppale si côté yëpp mu suñu bàyyi moo ak Xaalim Jaañ mu Yaasin Dukure kooku ñun amuñ fayam si côté bépp ndax wax dëgg yàlla koo xamante ne avant làmb après làmb ak toujours làmb kooku day nekk ak yow di la jàppale si xelam di la jàppale si dooleem kon kooku ku mel noonu ñun amuñu fayam rawatina nag ñi nga xamante ne ñoo may ñaanal awma seen fay bu baax bu baax ku si mel ni waa Fatick waa Diouroup ama seen fay waa jaxaaw waaw waa arrondissement Fatick bi yëpp région de yëpp maa leen di sant leen gërëm quoi lañ jël seen wàccuwaay nga xamante ne combat bi ñoom ñëpp ñu ngi ko doon waaj waaw mais daal instant bii nii dañ koy jàppaat léegi du yàgg dara bu soobee yàlla béggee naa gaa yëpp ziar naa gaa yëpp di ziar nag waa Kër Ndiaye loo quoi waaw maa ngi leen di nuyu lañ jël seen wàccuwaay rawatina Ousseynou Diop moo xam di ko ziar moog jabaram ak sama doom yi nekk foofu loolu leen ziar bu wér di ziar suñu waa daayira yi tamit mm. ko ñun ay nitu daayira lañ voilà waa Ndiassane suñu daayira parcelle bi daayira soose yi nekk foofu maa ngi leen di ziar daayira Guédiawaye daayira Pikine mm. maa ngi leen di leen jox seen wàccu waay voilà di ziar tamit waa Kisé tamit sax xamante ne koor gaa ngi ñëw dañu ñun nim saat la ñuy korité ñu ngi waaj waa Kisé mm. gars yi instant yi xam naa léegi ñu tàmbalaat affaire yi te xamante ne koor gaa ngi ñëw dañuy dem Nimzaat. di wax tamit benn message boo xamante ne képp kuy taalibe Cheikh Rasuul war nga see bàyyi xel. muy marmite pèlerinage bi ñuy def. waaw ndax tamit souvent tamit loolu tamit def si tamit. jàppale sa bopp la ak ndimbalu suñu borom quoi. ndax tamit ñoo xamante ne dañoo ay ñun taalibe rek dañoo volontaire kere foofu kii. ndax souvent pèlerins yi nga xamante ne ñoo jóge Sénégal dem Nimzaat. yoon bi day métti si ñoom ñun dañ leen fay jiitu six jours avant wala sept jours toog lekk togg ay lekk teg leen foofu gars yi ku ñëw rooso balaa ngaa kii di nga jaar xéwlu gars yi tamit loolu nañ si bàyyiwaat xel di si def seen ñaq di si def seen lépp te xamante ne foofu lu faay def sa bopp nga fa defal ko quoi waaw di nuyu président bi tamit Amadou Diagne Ahmed Ndiaye ñu ngi leen di ziar bu wér a wér quoi xamante ne tamit marmit bi suñu xol la quoi. ndax tamit loolu dañ ciy gis suñu bopp baax a baax a baax dañu ngi koy waaj bu soobee yàlla ren yàlla na bu ren bi daal yàlla na dàq bu déwén bi quoi bu soobee yàlla jaay waay ceer merci waay jërëjëf. kon am mbégte kontaante bu baax a baax ci ñu ñu doon suivre ci TDR Média tey ki ñu jël si woon mooy Ndiaga doole nekk école di njag saar comme ni ñu ko waxee sànq rek bu ñuy commencé jamoon na ci wàccaay ci kalaaf yi euh, wara a rek Dour Sané ci diggante bi mu am blessure am problème mu tànk nekk ci nag di faju diko ñaanal yalla yalla nako suñu borom may tan ba mu ñëwaat nekkaat ci li nga xam te mo ci liggéeyam muy ci lamb ji di ñaanal képp ko bi rek way taw nga tamit encore une fois di tamit di joxewaat benen message rek ci li nga bi mooy ci euh, li concerné Makan ak ki nga xamante ne bi mooy euh, jamaïcain ay promoteur lañ ay nawla lañ tay bu dul ñoom mbëri duñu ko ak lu ci mënta xew rek ñu ñaan yalla mu rafet ku ci mëna dox jamm ak salam ba jamm am rek ñu la koy wax nga def ko ndax lu jamm jamm ko gën te réew mi ñu nekk réew jàmm la kon ku ci mën a dolli jàmm rek ñu ñaan yàlla yàlla defal ñëpp jàmm defal ñëpp tawfeex di wax jàmm ak xewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal jërë ngeen jëf merci beaucoup ba beneen yoon ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ba mu établissement Touba Darou Rahman su la Djokaya mën nañ jox gros œuvre ak second gros œuvre moi, li fondation élevé tabakh.